ki nu fi indi di yàlla bennoo la nu sant ma wax benn wax ñu ñaan ngeen dem peppi suuf yi ak nit ñi loo foog ne moo ci ëpp hmm? peppi suuf yee foog la moo ëpp parce que su mel sa daala léegi dox fii rek nga gis li ngay dëgg xaat na mu dey sa moroom noonu sa moroom noonu kon peppi suuf yi ëpp nit ñi du noonu est-ce que benn pepp suufa jur moroomam waaw kañ bidéew yee ëpp nit ñi ndax benn bidéewu jur moroomam duusi géchee ëpp nit ñi benn duus jur moroomam lu tax nag lu nekk yàlla daf ko sang ndey ak bàyyi ba ñëw ci nit arité chancé ne nit nag moom du mën am te doy ak bàyyi amut balaa nga ji du am ndey ak bàyyi xam nga lu war xam nga loo war lool de ba maam aadama pare pare bu kenn mënu la nettali suñ borom laal ndigam laal bu kenn mënul wax ndax amul cër waaye dañ koy gëm dafa am yu ñuy gëm te ñu xam nan la ñëpp juddoo doon nun ñii ñëpp foofu la ñuy wax alamu sorra ñëpp mel ni sànq lañ war war war mu posé ñu question ñu tontu mu am su mu santaane ñu def ko allah su bi rabbikum ñu ne bale mu ne warnante leen su ngeen wanantee jurante bu ngeen jurantee bokkante bu ngeen bokkantee xamante bu ngeen xamante bëggante bu ngeen bëggante dimbalante bu ngeen dimbalante yërëmante bu ngeen yërëmante mooy yërëm leen tabbi àjjana lii rekk kat waral yaay pap nijaay bàjjen tànt euh, euh, euh, référère kenn ki nañ ko waxee ci tubaab tonton cousin yooyu yu tas yooyu pour rek ñu nekkat benn ne na bu rek la leen yomb na ma lool bu leen defee na ne individuel lay def su ngeen defee ne damay bëgg a jaaxle mbaam ma sonn damay wax maam maat yi ñu won na maam yi maam yi won na maam yi maam yi won na baay yi baay na yaay yi yaay yi won na doom yi doom yi won nante ba mu des aadama ak awa ñoom ñaar ma santa aadama mu won na awa muy un seul personne ma defanteeg moom defanteeg ñépp mu pare. inna